tay dañu ñëw euh, ci terrain bi pour euh, vraiment pulvériser euh, le poste de santé pulvériser marché central bi mais aussi pulvériser quai de pêche Nous avons avisé nañ leen avant ñuy wacc sur le terrain donc li ñuy def ni wax deuxième phase parce que bi président de la république defee discours am discours ko ci askan euh, par rapport à euh, Mbass, bi nga xamante ne wàcc na ci euh, autorité administrative nous interpellé euh, interpeller que nañu jege structure de santé mais aussi ci instruction euh, le médecin chef de district de Mbour docteur Fatma wax ñu nañu jàppale service d'hygiène mais aussi euh, poste de santé ku ci nek ka fa nek responsable euh, au niveau du poste de santé ñu laaj euh, infirmier chef de poste bi lan moy soxlam limu soxla par rapport ak mbir mi moom moo ñu defal listam ñu yobante ko ñu livrer ko lolu ñu saisir euh, le chef de service du service d'hygiène au niveau départemental mom tamit ñu laaj ko lan la soxla ci limu soxla ñu yobante ko li nga xamantene mom lañ koy jàppale donc ce def nañ ko bañ ko ak pratiquement ëpp na fukki fan mais xeyna sax population yi yëpp ko won mais li am solo moy tay ñu encore une fois euh, ci terrain pour que, euh, euh, nga suñu suñu pour pulvériser maternité pulvériser le le dispensaire mais aussi marché central bi ak euh, port de pêche bon euh, dama bëgg a wax foofu rek pour tontu sa laaj que ñun euh, ñu ngi ci li nga xamante ne moom la kilifa réew mi santaane ci wàllu woowu mooy jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñoo yore mbir mi mooy le service d'hygiène et les structures sanitaires waaye tamit and ak ñom ci luñu ñu mën pour jéem protéger askan wi lolu mo andi tay suñu deuxième suñu sortie bi Euh, te loolu yaakaar nañ ne mooy li jaadu. Euh, dëkk bi ni ñu taxawee mooy euh, xanaa rek respecté ndénkaane yi nga xamante ne ñi yor wàllu sante wax nañu ko jàpp naa ne li ñu sant askan wi yëpp ci seen comportement kenn ku nekk la nga ca mën yaa ngi ciy góorgóorlu maanaam di moytu nuyoo Euh, di moytu rassemblement yi. Euh, yoy dal moy li nga xamantene moy mooy yi ñu wax te xelat na ne kenn ku nek yaangi ci mais respecter tamit euh, couvre-feu bi nga xamantene ne président de la république moko ko décrété pour nit yi tok ci seen kër yi. waaw fi day sant nañu yàlla amuñu daal situation bu nga xamante ne jaaxal na askan wi loolu nag ñu koy sant yàlla d'une part mais aussi di ci gërëm population yëpp ñi nga xamante ne bon vraiment taxaw nañu ànd.

désinfecter le marché aussi, le quai de pêche. Vraiment, maire Somon, monsieur Boukorchat, nous sommes vraiment ci lolu jappalé ñu ci bu baaxa baax vraiment gis nañu taxawayam ak gaawaay gaawaayam vraiment ci andak ak ñun ci xex bi xexu febar bi bi lëmbe bi vraiment depuis président wax euh, le préfet sorti génn ay arrêté vraiment bokk na ci njëkk réagir vraiment là vraiment sommes ñu suñu soxla vraiment bañ ko ko aussi dar dar vraiment le le indi matériel bi vraiment ñoom seen partition ñu ngi koy joué bu baax a baax dans cette lutte parce que xeex bi xeexu ñëpp la ku ne da nga ciy indi sa wàll ñun techniciens yi faj ak surveiller nous les collectivités locales vraiment en ak ñun jàppale ñu ci sensibilisation bi ci matériel population bi aussi respecter vraiment mesures yi ñu édicté pour vraiment and ak ci xeex bi ku ne bu défé sa wàll rek yalla mën na def vraiment ci diir yu gàtt vraiment ñu ñu arriver à bout de de de cette pandémie. bon matériel de protection bi mom comme ni ma ko waxee tantôt vraiment fépp la ñak parce que àdduna bépp ko soxlando mais Dieu merci wax deug yalla fi au niveau de Mbour. docteur Fatma vraiment amono stock de masque bo xamné bo problème bi amé daf ko jël tas ko ci structure yépp c'est vrai du lu ñu gënal trop mais euh, au moins amaguñu tension ñu ngi ciy korkoral ci luñu am maire bi aussi vraiment ak son conseil municipal vraiment renforcer na stock bobu ba fi mu toll nii wax deug yalla ñu ngi sante yalla suñu mission dafa bokk ci aar nit ñi ci jangoro yi donc tay buñu amé opportunité mairie somoon interpeller ñu woñu pour ñëw dimbali si ko ci ci xex bi donc ñun dañ ciy sawar parce que ci une mission dafa bokk ni dafa dafa bokk ci mission ñu accompagner maires yi ak collectivités territoriales ci gestion ou santé publique donc lolo waral tay suñu ñëw fi wa xam nga dafa am lu ñuy prévention primaire ou prévention individuelle manam nga raxasu ak ndox ak sabu nga fexé booy tisoli nga tisoli si ci con si sa paxu conc ah yor mouchoir à jeter di ko ñeendoo di ko ñeendoo di ko def ci poubelle bu réglementaire ay mesures de prévention individuelle mais am na lu ñuy wax mesure de prévention euh, yeneen xeetu mesure de prévention mooy lu mel désinfection donc yooyu c'est des mesures de prévention secondaires moo xam ne extrêmement important et ça euh, day jël en compte aspect ñin ñëpp waaw mais mesures yi ma njëkk wax ni nit ki la concerné mënul jël aspect euh, global bi donc lolo waral tey maire bi convié ñu ci ñu ñëw jappalé ko nous ñu xam suñu bop lañ koy defal aussi on doit être euh, war nañ nek aux côtés des populations di di amal leen une utilité. maire Somone mom quand le président a demandé nañu na collectivité territoriale appuyer structure de santé il yaakaar a na ci mairie bu réagir ils ont payé le matériel ils ont payé le produit mettre ko à notre disposition donc Lolo aussi il est il est à remercier par rapport à acte citoyen Bobo, acte de responsabilité Bobo vis-à-vis de ces populations